الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أونك يا محين وبك نستهين الحمد لله وحده وصلاة وسلام ألا من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداه الخير المرسلين اللئ وآل آلئ صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وإيا لأبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظ الله تعالى في دارين هو بقى وتعالى دارا في مسجد توبى تعالى بجاه ممدوح asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo délégué de quartier avec notable yi fi Je suis di sant donc les suis euh, ngi acte de nomination des délégués de quartier acte de nomination des délégués de quartier vu la constitution vu la loi numéro 7202 du 1er février 1972 portant élection de l'administration ça c'est quoi portant organisation de l'administration territoriale modifiée. Ville le décret numéro 92 1615 du 29 mars 2011 portant création des communes et communautés rurales dans le département des Rifisques. À son article 4, les localités communément appelées Darussalam, Safko, Ikade, Sokabek, Namora, Groupe Nabi et Cité Apix font partie intégrante de Tiaon Peul, Vu le procès verbal de la délibération du Conseil municipal en sa séance du 16 juillet 2014 portant élection du maire de la commune de Tiaon, Paul Niaga et ses adjoints. Vu le décret numéro 2021 687 du 28 mai 2021 portant création du département de Kermassar et d'arrondissement dans la région de Dakar Ville le décret 2021. 688 du 28 mai 2021 portant scission des communes de Kermassar et fixant les limites territoriales des communes dans le département de Kermassar, Guédiawaï, Pikine et Rifis. Vu le procès verbal de l'Assemblée générale du quartier Nimzad Almadi, 23 23 du 12 décembre 2022 portant l'élection de Moussé Barassal comme délégué des quartiers. vit le procès verbal de l'Assemblée générale numéro 002 du 12 juillet 2018 portant l'élection du président de la Fédération des délégués des quartiers de la commune de Théon-Polignac en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au nom du maire de la commune de Théon-Polignac, M. Barassal, nous vous installons comme délégué de quartier Nimzad Almadi 23, séjour 30 avril 2023. C'est bon. لكن léegi. زايل الكل هكناز وأكدار بنسء للخلق والإيمان قد جملوا طرا وقبل الذي أهل الكفار وصحوا والإلم دهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذ ما داروا لا سيما وسبحهما أمر عثمان هو والين والأبرار عليهم الدار للوالي لله كما قد استنار بنور من الأنوار سهلت ربي بالمختار ثم بهم أن يسلب اليوم أني سنب والهار سهلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفالي دهر أسرار سهلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بسوء قرار سهلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في خد النار سهلت فلجميع بين غرباق إقرار وبان إسرابق المختار وهدوما في ديخ نهو مال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباء مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذي من أول مرخده والكل من أم بسوه فيه أمار وقابلوا بسوء آذدين له في ليلة سار فيها وهو صبار هو جونا ومن واجر والا إذ ياني فوق الترد وهو كرار سار ديزيسيون bi mi xool leen ko jox nañ ko ko mi ngi nii te nee na nag na ngeen moytu kayit gi nee na nag dinañ ñëwaat incha allah léegi nag kon ngeen déglu. su ko defee ñoom ni ñu bëgg ñu doxalee programme bi ñu daal di koy compter noonu Thierno ñu ngi lay gis sa baylaat. ngi tudd Cheikh Tidiane nee na moom mi ngi tudd Cheikh Tidiane Ndao. d'abord kon il faut mu nee na kon faaw présenté wu. association bi ne moo regroupé nee na association bi nga xam ni moo groupé képp kuy Saalum Saalum. nekk Dakar et banlieue. nekk Dakar et banlieue. état reconnaître ko. moom mooy président national moom mooy président national bi. kon bu ñëwee fekkee lii ñuy defal baara tey kon rëy na ci ñoom. Euh, ñu ànd ak nag ci suñu délégation. nee na ñu ànd ak nag seen délégation. monsieur Fally Sagna mu ngi nële Sagna mu moo tallal loxoom noonu. Ansou Sadio Sarr mu ngi nii toog. ak Ansou Sadio Sarr mi ngi nii toog. ak euh, Moustapha Biaye mu ngi nii toog. ak Moustapha Biaye moom kenn dootu ko présenté mi ngi nii toog. ak Ibrahima Ndaw. ak Ibrahima Ndaw. ñu ngi kon ñooñu ñu ngi ñu ngi la nee na njabootam a ngi ne la toog waaw kay. ak délégation bi nga xam ne. ak délégation bi xam ni. ay jigéen lañu. ay jigéen lañu. te Astuwan ak Buriñang jiite ko. Astuwan ak Buriñang jiite ko. ak ku ñuy wax Ndey Faatu ak Mbaaxe. ak ku ñuy wax Ndey Faatu ak Mbaaxe. kon nag. Euh, nee na kon nag. délégué. délégué. nee na ñu ngi lay sant di la gërëm. yàlla gëm na bi ma ñëw xamul sa kër damaa na yàlla xam na ne bi muy ñëw fii xamul woon sa kër Diallo Thiakri la foogoon ni fa nga dëkk. waaye nag. ndaw lekk Thiakri ba dee. nopp amul ay na nopp amul ay kubéer. yàgg naa dégg Baara Sall. yàgg naa dégg Baara Sall. nee na du fii déggee. Moustapha Wade délégué de quartier. nee na Tiwaawoon quatre-vingt-dix pour cent yëpp xamante nañ ciy délégué. kon rek laa leen di wax. Baara Sall ku ko xamul da fii la la fekk waaye man mi ca Pelle woon garaam yi ko fa di boot sama taaw xam ci dara sama taaw bee fi taxaw léegi nii kon xam naa ci dara gis nga sanc bii keroog ba ne fi cëpp laa ne leen sant nañ yàlla te booba xam booba xaw sax ndax bay baara dëkk na fi am déet ñun garaam yi na fa cëpp dëkk fa Saalamaar nekk fa ñu ne fa ay ay ay seetar ne ndox lañ daan indi ma roqee tunkara ñetti seetar ne bu ko bay baare indee kër gu ne dañ lay bind ñaari paan kon yu fii yàgg na amuñu ndox ku ci dem cité deux soo nga roote ji ñaari sewa indi ko sa kër boo doyul ndox su indee ñetti seetar ne jeex ba yaa roq yi indi ñetti seetar jeex kon kii dale wut lu baax de da ko fee indaale da ko fee indaale toujours moom laa leen di wax bay baara dafa indaale lim doon def garaami ni da ko indaale fii waaye nag nan sant yàlla te jàpp ci bay baara ndax li tax ma ne nan jàpp ci bay baara ku la wanu yoon kat mooy yoon ndax gumba buy làmbatu ba mutu yoon bu yàggee mu daanu ci kàmb te nun danoo yëg si ñekki gumba mbay baara ñëw xàll jël caterpillar bi xàll na jaar leen fii waaw kon nag ku bëgg ne kóor nu kañ bi kóor ndax jolof jolof loolu lay wax boo bëggee neel kóor boo bañee neel kóor ndax gis nañ lu daan kóor wóor nag boo ko déggee mooy ki wal ba teesal ku wal ba teesal te amoon soow boo laaxee du neex a lekk ñun nag danoo wal ba teesal bay baara indi nag bi diis na ngi lay ñaanal nag yan sa kaw tamit di félicité Faty parce que bu yaatulul woon tey lii du am dafa yaatal yaatalaat yaatalaat ba lii am euh, di tamit di remercier tamit euh, bépp kilifa bu fi ñëw ak imaam yi imaam ba ñoo ngi koy ziar di di ziar tamit imaam bi toog nii tamit euh, di ñaanal ñëpp tamit Euh, li ñu li ñu su ñu sumb nii yàlla yàlla def mu doon tawféex euh, mu doon tamit euh, gënal ci quartier bi mu doon tamit ay xéwali xéwali xéwal lépp lu ñu sént ci quartier bi yàlla na ko yàlla yombalal. di wax kon pour président Senghor. mu bàyyi xelam ci Pape mu ni nga bàyyi xel bu baax ci Pape Euh, sur sa façon de de vouloir organiser ni mu ko bëgg a organiser ci suñu quartier bi. nee na ci ni mu ko bëgg a organiser ci quartier bi nga bàyyi ko ci xel te dooleel ko.

après di doxal nu mu ko sentiree. après di doxal nu mu ko sentiree. mais moom Baara nag moom dafa ñëw. waaye moom Baara dafa ñëw. bon woo quartier bi yëpp. woo quartier bi yëpp. tàllal loxo ñëpp. tàllal loxo yëpp. indi beneen façon de gérer. indi beneen façon de gérer. ñu ñu war a nekk benn royukaay. ñu war a nekk benn royukaay. par rapport ak par rapport ak Tivaouane Pël. di am yaakaar lool. nee na di am yaakaar lool. bis bu demee fekk ji ñoom Senghor. bis bu demee fekk ji ñoom Senghor ak naataangoom yi. ci réunion yi ñuy def. ci réunion yi ñuy def. xam naa dina ci apporter lu bëri bëri bëri bëri. xam naa dina ci apporter lu bari ndax expérience bi dina gën a yokk. voilà donc loolu ñu ciy sant yàlla bu baax. kon loolu ñu ciy sant yàlla bu baax. waa sama yaay Fatou mooy yaayu njaboot mooy yaayu njaboot tàccu leen lii te di des baara demul kenn demul ñun ñëpp ñoo fi des. waaw pour mu leer. nee bi ñoom boo noonee laal nga si karal fal li la ki mooy fal fala ku sopp Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou xéewal war la lor de du la la ba del tal xam nanu la lu wax borom nguur ga gaaw koo de ku sopp Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou lawlaa ka Cheikh Fallou xéewali wër na la bu xéewali wal waleta na ngeen way Cheikhuna al Fudala fadlun azimun la te ñu mën a bañ ñoo fi ne ay kilifa fi ne imam sa imam bi imam ndaw imam ndaw sama xel sama waay du jox sama kër barsal moom dama woo sama kër ba ñëw këram fii te ñu toog ñu waxtaan dina ma woo ko ba ñëw sama kër toog ñu waxtaan délégation dégg nga alhamdulilah rabbil alamin ah lii ñaan yàgg naa ñaan parce que boo jiit da ngay yaatal fii man damaa fi nekkoon chef de quartier fii yëpp boo am benn commission man dama maa fi nekkoon ma yaatal tey ñaata chef de quartier moo fi nekk bëri na yow boo amee tuuti boo amee tuuti mooy ñëpp xëy na ñëpp yëpp xëy na su ko defee nga oyof dégg nga maa ngi sant commission bi sant ko ñoom Senghor dégg nga ak ñoom àndal yëpp maa ngi sant leen gërëm euh, naa fi trop alhamdulilah léegi moo ci des naa nelaw waaw Baye Sall yaay Baye Sall euh, yaay délégué de quartier bi sant yàlla lépp yaay borom doo fi dox fi ba géej ba identification ba sa sa département la waaw après ñu envoyé ay nit ñu ñu ko fiche fiche ñu doon photocopie ñu daal di ko sauvé ñii dañu ci imam ratib bi mu nekk imam dongo maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam wax ci ñaar côté dinaa wax en tant que délégué de quartier d'abord nekk ci gox bi ensuite nekk membre commission mu am lu ma si wax ma am donc ma ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ma témoigner bu baax la man ak moom taxaw nañu guddi ak bëccëg ànd di liggéey nit bu oyof am nga chance imam borom xam-xam bu mag bu calme la te yàlla am na lu ko may man mii xam naa si daal maa ngi nuyu imam euh, Ba moom tamit nekk ci quartier bi di ñu jàppale ci jumaa ji mu nekk borom xam-xam maa ngi nuyu notable yi su ma jëlee Moustapha Biaye Biaye jógal kii mooy Moustapha Dieng am na lu fi wax ñun du ñu xëccoo du ñu xëccoo ci ay affaire ñun dañuy dogal commission bii ku fay dugg du caaxaan moo la fay dugal maa ngi ci fukki at léegi mais kuy dugg fii am na lu tax foofu tënk laa wax kii bu ma fi nekkee délégué de quartier bi ñu fe zone bi yëpp moom moo ma jàppale mi ngi noonu moom laa teg fii def ko élément de relais boobu jamono ñu bëri ñoo fi duggoon ci koñ bi di yàq di bind ñaata yoon laa dem Descos man ñaata yoon lañ ma woo pour zone bi loolu ay secret moom dinaa ko gërëm fii ndax moo ma jàppale ci lu bëri moo bindi lu bëri ma créé beneen panel pour ma may jàppale lu xew ma yëg ko ma ne nga bàyyi ko xel kii ndax fu ma nekkoon dafa sori woon di nuyu Sané nekk président association bi sama sama gox ci sama biir quartier ñuy liggéey liggéey bu baax moom ak Sadio mi ngi noonu nga ni jóg denc par expérience loolu na nga ko sóoraale bu baax loolu moo mel noonu jamono day jot ñoo ne yow yaa baax ñoo ne ñoo ñëwaat di naan yow baaxoo commission nag déglu na secrétaire général mi ngi biir bu ñu ñëwaatee di wax leneen commission mooy nekk ga euh, ga comment mooy défendre Baara yéena waxoon Baara dafa baax yéena ko fal kon Baara bu duggee ci association délégué quartier dinañ ko protéger guddi ak bëccëg dinañ ko dom dinañ ko protéger loolu la leen ku dal ci kawam ñu dal sa kaw ñu ngi leen ma ngi lay dénk muñ ba tey Bara dikk Pape Bara dikk nag moom ndax bu ko mu sama kër bàyyi ñi ci des waaye dani man du sama kër ba pare bàyyi nit ñi lëndëm mu dem Sénélec fay fa xaalis bu bari sopp mi ne ko Baye Bara mu ne mu ko ah ñeere dañoo war ne booy mu ne mu woote Sénélec doole ay botom leeral ñëpp tey ku mën ci wala ngay ndox mu sedd ji la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم salaamun xawlan min rabbi rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu képp ku fi teew di wàccee nuyoo yi ci imaam yi ak kilifa yi fi nekk ñu ànd ak waa am kaat nga xam ne mama ramata mu ngi nii mama rama wàttu jiite nekk madame la présidente jiite li nga xamante ne mooy association. ñoom quelques rek. nga xam ne nag ci social rek lay doon. buñ nee social nag ëmb na lépp. ëmb na lépp moom boo tuddee social rek ëmb nga lépp lu nit di dundee ak lépp lu nit di jëfandikoo loolu nag bu ñu ko jàngal Seydina Mouhamed Alisa. salaam kon ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yorente bi ah di nuyu nag ki nga xamante ne mooy madame Sarr di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal fii ay responsabilité yu mag la fi yor di ko ca rafet doxalin bu tedd bu yiw bu sell waaye nag may wax ni jigéen ju baax joo gis mu am taxawaay góor gu baax moo nekk ci kanam kon suñu papa ji ñu fal muy Moussa Sarr la ñu ngi koy ñaanal ku fan ak wér di ko ñaanal sutura ak waaye di ko delloo rek ci ñeent te di ko bàyyiloo xel ci ñeent muy àtte amul sentiment ku tooñ dañ la teg si soo jéggaloo mu ñaanal la ñu jéggal la soo nangul jéggalu la ñu teg la si yoon parce que nit ñi bu yoon amul dañuy lekkante kon ay jël yoon rek moo mën a ñëw taxaw mën a delloo kenn ku nekk ci palaasam nit ñi ragaluñu yàlla waaye ragal nañu yàlla kon dafa am crise boo xam ni moo nekk ci Sénégal ñu koy yóbbante suñu papa muy crise de autoritaire crise de compétence crise de confiance crise de valeur kon loolu lañ koy jox mu def ci liggéey jox ko yóbbal waaye nag dégg naa fi mu yàgga yonente bi sallallahu alayhi moom la yàlla subhanahu wa taala waxoon nekk yaa rasul Rasulullah di diisoo sa gaay kon suñu papa ah délégué de quartier del diisoo ñëpp yaa ngi sax waaye dañ lay fàttali pour mu gën a woyofal sa yàq pour mu gën a woyofal sa toogaay ndaxte lu ñëpp bokk dañu koy pencoo kenn du ko paajoo kon buñ ko buñ ko buñ ko woyofalee rek bu soobee yàlla incha allah lépp dana woyof si askan wi waaye tamit dana woyof si moom Sénégal nag mën nañoo fal. waaye bari na lu ñuy fal di fàtte te loolu baaxul dafay andi crise ci dëkk dafay andi ndóol ci dëkk nit ki boo fexee ba fal ka na nga fexe ba jàppale nit boo fexee ba fal ka loo xam ne day defar na nga ànd ceeg moom nga gunge ko kon mon père loolu lañ lay ñaanal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yokk sa fan dëgëral sa taxawaay yàlla suñu borom sàmm la réer dëkk moom bu ñu amee ay mag ñu baax ñu mel nii rek lépp daal di leer ndaxte xale yi bariwuñu kersa waaye mag bari na kersa mën naa wax ak ku tàng mën naa wax ak ku sedd mën naa wax ak ku neex deret mën naa wax ak koo xam ne neexul deret kon loolu lépp mag moo ko man parce que xale dafa bari lu deretam di tàng kon moo feet ñu ngi lay ñaanal di la remercier di la sant di la gërëm ci ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dëgëral sa taxawaay yàlla nag mooy fal bu la falee dina xaaj ci genn wàllu nguuram jox la kon loolu la yàlla jox muy gënwaalu nguur koo nga xam moom la la jox yàlla xaaj nguuram jël nguuram xaaj ko si digg bi jox la benn téebeel kon li la yàlla jox yàlla yàlla jox yàlla bu ci kenn am lu ko naqari asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf kon ñu jox ko ñu jox ko photographie photo leen filmé leen waaw kay photo leen filmé leen

de sa sens da nga koo mérito <coughs> sa soxla si ñëw man nag maay loobe bi fu ne lañ may yóbbu may ànd ak ñoom te fokkatu lañ ma benn yoon sa soxla si ñëw ñu jox ko organisation madame la présidente gi nii toog wàdd kaasa ñu jox la présidente organisation ngay naqare yor mbooloo mi dañoo naqare yor te bëggoo kenn mer la lenn loo xam ne rek dañuy ñëw gis ci rëq-rëq joxaguñ la lenn loo xam ne rek da ngay ñëw ñu gis ci defet wala luñ lay critiquer kon nag tubaarkàlla macha allah bu baara tëggee bésam bii du sunu bés ndax sunu bés bi su baara kon il faut ñu def dérangement. def déplacement ñëw décoré nag baax wan ko ni li ñuy defal teg nañ ci suñu bët dexal. macha allah nag bu fekk ay jigéen ñu fukkee ko di liggéey nga jël sa alal ci te mun doo ko ne oo oh, kon tubarkalla buñ la tëggalee bés bi dañuy ñëw. par force jox ma enveloppe bi fàttaloo. kon du ñëwal. kon nag loo tax boo tëggee bés bi ñu dëkkalu sa jëkkër ñoom it dañuy indi suñu njaboot ci yow ndax dañoo bokk ndey bokk baay di dóorandoo di xàccandoo moo war a suñu teewaay kii nag sa remerciement la ñoo ko teg sa loxo ñun jigéen ñi waa AFCA ak waa AFCA ñoo la ko jàppale ci bi. ne sunu alal nga sàkkal bopp yow wala nga lëndëmal ko yéen a gis lii envers wax waa Aftar wala merci ma jëlal kon du jox ko loolu rek laa ci doon sànni. jërëjëf yal na yàlla fay leen waa APCA kon ñu continuer programme bi rek incha allah. waaw jërëjëf. dëgg la. kër naa moom ñu tàgg ma fa ay yéen a fukki bu ma ñëw mu jaay wala ñëw ñu toog waxtaan ñu ne ay ñu ne ay responsable ay personnels bu mag parce que mu nekk wax ma ni kat dafa am na fi taxal association léegi dañ laa dégg bëgg na nga ñëw bokk ci ànd ci ma ne ah man loolu moom wax naa nga man li wax baax na man daal lu ngeen def naa ci parce que dama demal ñu dema dema dem ba dégg ko man la nag nangu naa ko de mais da ngeen di sàkk benn benn commandé Euh, vice président bu jeune di doxal am ay conseil lu mën a ñàkk nag ba dem boobu laa jugee ñun ñu sàcc benn comme Pape Faye ñu ko defal ma ñu ko def baax yàlla nag loolu duñ ci duñ ci suturaal xale yi ñooñu di dox ba am kon nag loolu demee nañu garanti bi xale yooyu tamit faaw ma gën a mu faaw ñu sax parce que foofu mooy yoon loolu rek laa leen di ñaan jërëjëf jëf di sant jërëjëf Thank you.